rek moo nu mën a génne ci situation bii nu nekk agression beeg xëccoo beeg njëkkante beeg xeeb li nga yor ak yooyu yëpp sëñ Mbay Jaxate andil la ci loo xam ne bu la ko waxee da nga ko gëm lim la wax da ko gëm ba noppi te da nga ko xam parce que wax ñaari defu la am nga wax ba noppi ki ngay waxal xamut li nga ko wax wala mu wax ba noppi li mu wax gëmoo ko mais sëñ Mbay Jaxate lim la wax da nga ko xam da ko gëm sëñ bay jaxat nee na xamal ne firdaw si moo gën fopp àdduna ngir firdaw si kenn du fa jóg àdduna kenn du fi des serigne mbay jaxati limuy wax bi sen nga tek ci beut mune aduna day dox di mbas aka tas yaakaar akay waru nit mag ak ndaw ak ko fi gis dunya ngi koy nege bis xam nga loolu dang ko gem dang ko xam mag ak ndaw ak ko fi gis dunya ngi koy nege bis bis bu sa mbir bo dendo ak nit bu ngeen sësaloo won ay mbag bu sa bop day metti sa bop day metti du ko xam kon loy nga xamne ne sey responsable ba tax mune bul yitte woo xam lu dul saw sas ku bëgg njariñ day jéem a xam aw sasam te jéem a dem bayi ko parce que lii lii circulé léegi dafa bëri moo tax mu ne kuy roy na roy waaj a xam tey topp moom ma tax roy ku roy ku dul kile loo am kat na sedd sa xol gaa yaa ngi ngir yaa ngi koo gis am na ngir mu mu aw seetal ba xam fa nga jëm bul def ku jóg nga àndal sun mboole nan tuubi comme andro yu xew moo tax mu ne la gaa yaa ngi ngir mooy aw yoon gaa yaa ngi ngir yaa ngi koo gis am na ngir mu aw xoolal ba xam fa nga jëm bul def ku jóg nga àndal sun mboole nan tuubi lan daan mooy diggante jëw ak wor ak rambaaj ak doguk bokk di wax lu amut nanuy bëggante te mel nay doomi baay ak ndey bu ñuy xuloo ko werantee kay fabante fetal jullit dafay julli tey wir daka sàmmi cëram te fonk wóllëre moo jaa ak njullit li nu mel daanee ka noonee ka dóorantee ka tuddi ayib naa fiq yaa ko fi daa def ngir gëree ni mbugal ci jamono ji léegi daanee ka noonee ka dóorantee ka tuddi ayib naa fiq ko fi def ngir nan jëf sellal jëf jëf ju sell di tax yi aji jëf moo tax nañuy yëwénal sëriñ mbay jaxat na kuy jëf lu sellul du am jaajëf du noppalu it ku xam lu jar dagu dag goo xam la fal xamal ne lay gis jëm jagalal bul mel ne kuy def lu bon tey fas ne yàlla gisul farlul te jaamu ba ngay ndaw moo la saytu ba tey di wërsëgal ak a faj say aajo ak di teral wéetal ko bul fàtte xéewal yi mu lay may may ba xam ne tey jile yaa ngi def boroomi kiréel seetal sëriñ bi nga am ak jagle gi mu la jox te baabakar dëgg santal lii la yàlla defal bu ne Babacar nag jëme ko ci boppam bul defee ne boppam ko tax di wax su ko jëmee ci ab xaritam bul defee ne xarit baa ko tax di wax bu ko jëmee ci taalibeem bul def ne taalib baa ko tax di wax buy wax adduna bépp lay waxal bu sañoon bindeef yëpp jariñu bëgg-bëggub sëñ Bàmba ba rek lay dundal te sëñ Tuubaa irham jëmi alwaraa la wax yërëmal mbooleem bindeef yi ndeg menteeg yëpp la sëriñ bi ñaanal jàmm sëñ bay jaxate buy wax léebuwul kenn tooñul kenn xasul kenn wéerul kenn toroxalul kenn li muy wax mën ngeen a toog fii duna ne kii lii ko concerné kii lii def déedéet day wax ne barab sàngam ku jëm Touba daal yoon wii moo jëm Touba. layi dëgg dëgg-dëgg yoon wi ba ku bëgg a ku jóg te boo fa jógee soo bëggee dem Touba xam yoon wi ngay jaar mën a dem Touba. noonu la liggéeyee la sëñ Touba ab tàmbali la luy doog jot la waaye sëriñ bi lépp la teel tax tax sëñ Bay Jaxate daf ko wax ne euh, dafa wax euh, sëñ Bamba euh, sëriñ bee matub sang. moo gën ku ne te moo doy tubaab ak wolof ak ku ne mbiram doy na naar ak tubaab ak wolof te doy sëkk góor ak jigéen ak gone ku koy sikk nekkul ci suuf ak ci kaw mbiram fës na népp jant tey moo fi ne ba leeral na suuf ak kaw ak bépp gox jëfam jëm na kaw aw turam dem fu ne ba max nañ ngëneel ak njariñ képp nit ba koo gis mu feesal te am nag lu ne bu seeroo ku sàggante bon mel ne man mu fab teg ca kaw far ko may sag bu ne bu dee gis ku ñuy xeeba kay dox di xas mu nëbbug bonam xëpp ko yu wune ku ñuy dox di soxloo ko soowug bonam balaa jekki kookee rawee kay gëne bu jàppeeku bokkam ya fa sànni fee bu delloo fa bokkam ya moo fay tane ngëneelam yi ñoo daj kajoor ak bawal te daj penku daj soowu daj wet gu ne ngëneelam yi ñoo daj kajoor ak bawal te daj penku daj soowu daj wet gu ne bërki démb ndakaaru ci xew-xew bu rëy bi sëñ Bay Jaxate waxoon lépp. waaw masaalik bi. Hmm? daf na seexul xadim ca guddi. Hmm. nga woo bari yëpp daane ñu xëy di miim. nga woote ci bëccëg daane ñëpp ñu faf ne xiim. guy masaalik démb bokk na ci jëlli bëccëg yi. boo bëree kum ponkal daan ko ci guddi. mu fanaan këram xëy sangu ba set sol mbubam dem ca penc may nett naan dañoo njëlloog daanuwa daan bu baax kooku werante lay indi. waye Tyson kéro bañ ko kiyé ba benn bët bi dugg ci suuf ci bam mu kenn kenn dafa dem wut fum laq ci guddi nga wo bër yépp daana ñu xey di min nga ci ca ak daana ñëpp ñu faf ne xiim xam nga jamono bi lima la waxon légui señ bi dafa ag fo xamné Demokrasi, démocratie ak liberté droit de l'homme ak technologie dafa ag fo xamné so né won yalla bor la képp yam ci tam dañ laan la waaw waye nak kon légui bo ëndé dara prof bo ëndé légui da ngay ëndi prof palpable sëriñ bi amul moroom rek dañ koo dépensé dañoo war a wane extap ay yoo xam ne preuve li li tubaab wax preuve palpable dafay am boobu bokk na ci ñooñu ndaxte li ma la koy waxee masal mu leer nañ ba l'islam duggee Sénégal léegi lañ investiroon Dakar tàmbaleel ca Grande Mosquée évaluer yëpp dajale ko génn taux boobu nga fab jumaay musaalikul dinaan nga dugal ko ci ba xam sëñ bi lu mu leen deseel benn ngoog nga woote ca bëccëg daane ñëpp ñu fab ne xiin ñaari motif rek nga gis ñuy liggéeyee koo gis muy liggéeyee dañ koy fay wala ñu forcer te bo jëlone ab ouvrier diko liggéey lo tay bala liggéey be gi nga gis muy rikilé nan la affaire duma ci dugg mais vraiment arrangé wu ma quoi parce que da nga waron doli na di rikilé ba nga xam ko lu tax jeunes yi nga xamni ci si duggaguñ aduna wala mag ñi wara jéxal aduna ak ñepp ko ci gis kuy liggéeyal Serigne Touba du delu gannaaw lu mu gën sonn xolam gëna sedd exemple ngeen ci yéen ngi ni di sonn ñi magal ci coono buñ mëna a daj du sé sen xol sedd lu tax la ma la waxoon xaajoowul ak yalla bopam lepp jox nako ko moo tax ba waayam du xaajooy ajjuma ki ngonal kon loolu day dellu siwaat ci nga woote ci bëccëg daana ñëpp ñu faf ne xiin beneen bi gën a jafe foo gis gars yi ñu ngi bind ay test di woote ay réunion di def ay union lu ne ñu def ko bëgg booloo moo tax sëriñ bàmba rek la yàlla may ñaar ñu yaakaar suñu bàmba kenn juddoo ci penk kenn juddoo sow bañ am juróom-benn fukki at mosuñoo gisee ñu gisee benn bis bokk yaakaar suñ tubaa day mel na ndox moo sotti ci ndox moo tax xoolal ci kanam tuuti état islamique bi ngay dégg ci àdduna bi ñu koy wax amul fii lay amee ci sëriñ Bamba asalaamaaleykum wa rahmatullah Bamba war naa